dégg naa ko mais man je que usager yi ñoom ñooy poser problème parce que visite technique nag wax dëgg yàlla pour man. Mm. ngëneel la pour usager bi. Mm. dafa mel ni yow tey yow nga xëy sa patron ne la demal ci benn clinique bu la neex ñu saytu la sa yaram xool ndax amoo benn feebar. Mm. bu ñu xoolee gis benn feebar mun na la demal ci spécialiste ba koy faj ñu fajal la ko balaa moo gën a garaaw sa yaram balaa mu lay gën a lor. waaw loolu kañ kuñ ko wax. war ngaa xam ne pour yow la bi yow yaa ciy yéeg. yaa ciy dugal sa njaboot ñu ne la visite nga xam nga pour lan la pour saytu ndax yi jàpp na ndax pneu yi baax na ndax lampe yu leer nañu ndax ceinture yi baax nañu ndax airbag baax na maanaam ñu saytu ba xam ndax tey jii bu accident amee dina la mën a lor du dina la mën a aar du moins waaw léegi nag yow ngay tricher pour bañ a dem def loolu kooku dal lañu war a mën a wax à son ma jox la benn exemple bu ndaw rek accident si kilo bi bi muy am def presque cinquante morts ce qu'on pas mhm. au même moment mais en France il y avait boo xamante ne du bus mbëkkante de bus bu jàll ci pont la daanu ci suuf un bus qui faisait quarante personnes y trois morts xam nga lu tax parce que tout simplement conditions yi ñuy voyager ak oto yi dafay daf justement dafay am impact gis nga politique de sécurité routière bu ñu koy wax dans un premier temps la ne humain véhicule environnement organisation boo amee benn bu manqué ci cadre yooyu noonu mooy doo dem d'accord léegi li ma la siy dollil mooy oto ba bu demul technique bi koy def moom yow boo gisul oto nan nan mais Adja billet banque. là banque billet ëpp valeur visite technique te dañ koy fars. faux billet am na. sëgam biir banque ak ni mu toll ak fañ koy a am xereñte fu jël defar ko kon beneen document boo mënti teg dañ koy démb rek maa waxtaan xarit mu ne dañoo jàpp benn cousine am aéroport parce que da doon voyagé il que visa bi ñu ko defal c'est un faux hologramme bu bon visa bu jógee ci consulat yi lépp la mais nit ki ci boppam moo war a xam ne lii pour moom la bu nit ki moo war a xam ne lii pour man visite technique su ma fa a dem damay sant yàlla xam nga lu tax parce avant pour nga mën a dem ñu branché ordinateur cegal la sootu il fallait nga dem ci libanais yi ñoo fi yoroon garage pour ceg bi kese soixante-dix mille nga daan fay à l'époque pour ñu xoolal la kese yan paan nga am bu ñu la waxee yan paan nga am génn la ordonnance nag soog laa nag mën a waxaale ak yow ci nan lañ lay dépanner ñaata lañ lay dépanner léegi bi ne la sa prix dafa jeex naa bañ a taxaw wala sa essuie-glace yi baaxul taw doo gis dara wala sa ceinture de sécurité dafa bloqué mënoo koo takk demal nga defar ko pour oto bi mën la aar mais loolu buñ la ko waxee mais da war a est waroo sax dolli ka nga xam ne moo la koy defal mais da ngay ñëw buntu visite technique ngay ñëw fekk ñu nekk fa di réparer ay parallélisme ak ñu defar loolu mooy triche bi parce que yow xam ne balaa ngaa egg ci yëpp dañ la koy loué am na yoo xam sax dañ la koy loué dañ la koy jaay yëpp dañ lay loué yëpp c'est des éléments de uh-huh. ko ciix di arrêté feu bi boo paanee ci àll bi wala ci tali bi fu mu mën doon moom ngay teg à. yooyu yëpp nga xamante amul sanction yi war pour yenn infraction yi nga xamante c'est des infractions de première catégorie. maanaam ba pare pare question de pauvreté man du bëgg ñu koy aborder dans ce sens là mm-hmm. xoolal. xam nga li nga wax nii dama lay répondre xaar xaar dama lay répondre tontu boo xamante dama ko mës wax nii. parce que xaar rek y rien d'idéal xoolal ça fait 17 ans que je suis s'applique mm-hmm. quand tu me de pauvreté comment font ces gens-là yi nga xamante ne ñu ngi yor ay sociétés de transport privé di dem partout dans Sénégal mës ngaa dégg seen carte këpp ah, xaar rek tontu ma mës nga nga dégg seen carte këpp

uuf doomam ma ko li nga def nii dootul sax code de dootul infraction délit la c'est l'article 307 bis du code pénal moom moo nekk yow moo la dal yow actuellement dañ la war a tëj parce que c'est un de mise en danger de la vie d'autrui mu ne ma non su ma ko tegee si ginnaaw du mën a toog parce que dafa tuuti ma ko nga jënd siège bébé mu ne ma fan laa jëlee nu ma jëndee siège bébé ma ne ko tu as un véhicule millions. Mm-hmm. siège